asalaamaaleykum mbokki internet suñu gaal 24 ak dakaar midi nee naa leen nag damaa taxaw ak kenn koo xam te nii mag la ci Modou ñu koy wax père Ibou maa ngi lay nuyu bu baax a ah, maa ngi lay siyaar euh, fils di nuyu bu baax waa Sénégal 24 ah. ngi leen nuyu di leen siyaar di nuyu waa Sénégal yëpp. père ñu jub si ci combat Ama Baldé ak Modou ñu jàpp ñaari signature contrat mu yàqu coow li bari lool. waaw waaw dayu combat bi dayu moo yegg foofu rek. mais je pense que aussi euh, war nañu am na yoo xam war nañu ko dépassé. ay sànni ay xeer ay yooyu yooyu war nañ ko dépassé quoi vraiment làmbu war na weesu foofu. parce que lii am nii sax am naa du du lu amaa sant du lu mu bëgg. parce que Ama aussi moom moo bëgg combat waa Pikine ñoom ñoo war a defar ñoo war a taaral bi bi sax. ñoo war a defar ba nga xam ni combat lu war a mën a am soit que keroog bu doon jàkkaarloo bii ñoom war nañu mën a defar ba nga xam ni. Modou ak amaa dinañ mën a toog waxtaan amul benn problème waxtaan la rek quoi. mais euh, lii euh, rafetlu ma ko quoi vraiment. rafetlu ma li am keroog. waaw ñu gis ne combat Modou Lo Ama Baldé dafa am tension bu bare bare bare bari ba man maa ngi dégg sama benn père Cheikh Ndiaye. dina combat boobu bu naree am est arène national moom. Bambey la koy fekk. <laughs> waaw combat bi dayoo comme li ma la bi moo toll foofu xam nga Ama champion la Modou champion la Modou yor roi des arènes euh, Ama soxla ko waa Pikine soxla ko topp ci ginnaawam soxla roi des arènes moo tax combat bi aussi tension bi euh, demee noonu. arène nationale la pour mu am fi soit que billet yi dana cher. mu mën fee am mais billet bu cherul aussi yaakaaruma ne dina dina mën a am te fii arène bi fi mu nekk bien vrai que baax na mais fi mu nekk baaxul environnement bi mu nekk nii boo dafa ñàkk sécurité amul amul benn sécurité amul sécurité de Modou nee nañ dafa ñëw ba ci rond point bi nit ñi di ko sànni xeer mu dëpp n'est-ce waaw loolu image yi ñëpp Sénégal yëpp gis nañ ko man mi maa ngi ci oto bi dañ ñëw ba fële à presque à cinquante mètres boo yi génn di ñu sànni ay xeer man mi dama wàcc oto bi sax su ma wanee ginnaaw ma xam naa xeer dina dal sama kaw dama ba macha allah xeer laalu ma mais vraiment loolu dañ koy ñaawlu quoi. vraiment ñu oto Modou. waaw am na am na oto yu bari yu ñu toj oto yu bari toj na. vraiment man bëgguma li am ci gis nga nawetaan li fi am. Euh, état bi aj na nawetaan nawetaan amatul. loolu bu amee ci làmb rek aussi noonu lay demee ñu aj làmb ji ba loolu pertement la. te euh, làmb euh, acteur de développement la boo xam ni ci Sénégal. facteur de développement la. mais waruñu ko yàq. waruñu ko yàq. xale yi war nañu góor góorgóorlu lii la ñu am ci làmb mbëri aussi ñuy sensibiliser di wax ak seen supporter rek seen fans club yëpp euh, bu ñu ñëw stade làmb affaire noobu la ñëw sañ sañ sañ see solo ba jekk toog seetaan boo daanee nga jubilé boo daanu nga xam ni eh, daan nga daan nga xam ni yàllaa la defal loolu mooy loolu quoi vraiment daal gars yi war nañ war nañu sensibiliser xale yi ba euh, acte de violence yi da jóge fi ci làmb loolu moom maa ngi koy sàkku quoi vraiment ci écurie yëpp ñuy sensibiliser xale ki yi bëreel di Ama Baldé ndax ndaw la te combat bi jaral na ko mu dem France entraîné ji ñibbi si bi nga gisee état de forme Ama Baldé ci image lan la nga jàngat ci lool mu euh, moom xam xam na Ama bu baax parce que boo xoolee bëri nañu boppam Ama bëri na fi bëriwaat fii euh, xamante nañ quoi kenn ku ne xam nga boo ne boo fi nekkee di seetaan sa adversaire di nga xam kenn ku ci nekk sa adversaire li mu mën ak li mu mënewul li nga dañ xam na Ama bu baax xam na li koy xaar Ama aussi xam na Modou bu baax xam na li koy xaar. waaw amaa ah, gis naa ko eh, ak forme mi ngi mi ngi ci forme macha allah <laughs> mi ngi ci forme maa koy ñaanal tal ak fekkee rek mu am wér ba juru làmb ji. <laughs> bi signature bi yàqoo dama jël père Abdou mhm. mu ne ma motloo man ak ñun ak ñoom face à face doy na. combat rek. <laughs> non face à face dootul amati. face à face la doy na. moom vraiment du ma ay waxam sax bëgguma de ci kii quoi sama grand la. mais daa mel ni daa mel ni da leen a xaw a sonal boobu moom. loolu moom day yëngal Modou quoi waaye dégg rek moo di ko sànni ay xeer. man man bëgguma sax di ko tontu bëgguma sax di ko tontu sama grand la aussi euh, vraiment naa ko bàyyi daal nii ñi di jugé mais man moom en personne bëgguma di ko tontu mais xam naa ne daal Ama lii booy di def sant ko kenn. Ama ko yaru la jox na ñëpp cër Modou mi nga xam ne moom lay bëree sax Ama jox na ko cëru magam mais magam mag Modou magam na ko deux ans magam la ko mais jox na ko cër ba mu mat sëkk mais ñoom baaxum war na ñu di sensibiliser xale yi wax ak ñoom ba mm. yi coow yi ba a am am na loo xam ne Modou ñun duñ ko def waa parcelle mm. ñun duñu yàq lam kenn mësul gis ñun waa Parcelles ñoo yàq làmb ji di sànni ay xeer ak yooyu non loolu amul si ñun macha allah mais yéen a ngi xool sécurité bi ak violence bi wax ak supporters yi supporteru Modou yi ndax moo bari na ay fans club mbax yéen a ngi sensibiliser noonu ci violence bi loolu moom naka jeg kuy seetaan làmb rek xam ne Parcelles du ñu yàq làmb ñun mësuñu jóg di di wax ak gone yi xale yi ci mbirum mooy li ma la sànq dafa am crime ñu tëj ñu tëj nawetaan yi. Mm-hmm. làmb boo ko amee aussi noonu la ñuy tëjee làmb ji. Mm-hmm. loolu nag mën nañ war nañ fa bañ a yegg. Mm-hmm. li may wax rek nañ sensibiliser xale yi. bañ a def benn violence loolu suñu njariñ la. bu làmb amatul doo demati stade naan yaa ngi seetaan yaa ngi seetaan mbër. bu làmb amatul ñiy jaay café ñii jaay gerte ak ñooñu ñëpp dañuy dem chômage. kon nag nañ ci jàpp bu baax di wax xale yi. ñu bañ a def benn violence. jërëjëf waaw jërëjëf père ñoo ngi lay gërëm di la sant ci ak nungul bi ñu ko nungul. waaw maa ngi lay kontaane bu wér yow moom sama sama fils nga. <laughs> di wax rek nga déglu ma sa papa ak ak yow ah. yàgg nañ <laughs> boobu depuis boobu tout tànk nga. dëgg la mais yow it sama sama xaar nga ma sa nekk moom macha allah. yow man maa la féetewoo. <laughs> ndax ci yar bi ci lépp ndax ku gis ni ngay waxee rek. Eh. xam ne waxoo xol waxoo dara bu la ñëpp toppee nag. ci Modou Lo Ama Baldé waa kër Modou ni nga waxee. Hmm. waxee nga ci dal waxe nga ci respect doomu aadama. Mm-hmm. te àdduna nag nii la rek père jërëjëf. yow woo waa parcelle yëpp ci non violence. Mm-hmm. waa parcelle yëpp maa ngi leen di ñaan kuy supporter Modou kuy soppee Modou euh, ñu ngi lay ñaan ci non violence.